Matthieu saar ñaar bi nga xamee ni yéesu wax na loolu ba noppi mu ne taalibeem ya xam ngeen ni ñaari fan a des ci màggalu bésu jéggi ba te dinañu wor doomu nit ki daaj ko ci bant booba nag saraxalekat yu mag ya ak njiitu xeet wa dajaloo ci kër gu réy gu saraxalekat bu mag ba tudd kayif ñu daldi gisee ba xam lu ñu mën a fexe ba jàpp yéesu reylu ko waaye ñu ne bu mu doon ci bisu màggal bi ngir yëngu-yëngu bañ am ci nit ñi bi nga xamee ni yeesu nekkoon na dëkku betani ci kër simon ma gaana woon jën jigéen ñëw ci moom yor njaq lu ñu yette doj bu ñuy wax albaataar njaq la def laj koloñ bu jar lu bare bari noonu bi yeesu toogee di lekk jigéen ji tuur ko ci bopp yeesu waaye bi ko taalibe ya gisee ñu daldi mer ne yàq gi lu muy jariñ maneesoon na ko jaay ci lu bari jox xaalis bi miskin yi yéesu nag xam lañu wax mu ni leen jigéen ji defal na ma jëf ju rafet lu tax ngeen di ko sonal miskin yaa ngeeg yéen bés bu nekk waaye du ngeen ma gis ba faw kii ci li mu tuur laj ko leen bii ci sama yaram def na ko ngir waajal sama rob ci dëgg maa ngi leen koy wax fépp fu ñuy yéene xabaar bu baax bi ci àddina sépp dinañu fa fàttali it li jigéen jii def ca waxtu woowu kenn ci fukki taalibe ak ñaar ku tudd yuda iskariyo dem ci saraxalekat yu mag ya ni leen lan ngeen ma mën a jox ngir ma jébbal leen yéesu noonu saraxalekat ya daldi ko waññeel fanweeri poseti estateer li dale ca saa soosa nag yu daldi fexe jamono jumu leen mën a jébbal yéesu bés bu jëkk ca màggal ga ñuy wax mburu ya amul lawiir taalibe yi ñëw ci yéesu ne ko foo bëgg nu defaral la reeru màggal lu jéggi ba yeesu tontu leen dem leen ca dëkk ba jëm ca diw ngeen ne ko kilifa gi nee na sama jamono jege na ci sa kër laay màggal si xewu jéggi ba man ak samay taalibe noonu taalibe yi defar reeru jéggi ba na leen yéesu waxe woon bi nga xamee ne timis jot na yeesu toog di lekk moom ak fukki taalibe yi ak ñaar bi ñuy lekk mu ni leen ci dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen dina ma wor taalibe ya am naqaru xol bu réy ku nekk daldi ne ko mbaa du man borom bi yéesu tontu leen ne ki dugal loxoom ak man ci ndab li kooku moo may wor doomu nit ki mu ngi dem ni ñu ko waxe ci mbind mi waaye ki koy wor dina torox bañoon na juddu moo gënoon ci moom yudaa mi ko nara laaj ko mbaa du man kilifa gi yeesu ne ko wax nga ko noonu bi ñuy lekk yéesu jël mburu sant yàlla damm ko jox ko taalibe ya mu ne leen jël leen lekk lii sama yaram la ginnaaw loolu mu jël kaas sant yàlla jox leen ko mu ne leen yéen ñépp naan leen ci ndaxte lii sama deret la ji fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bari jot mbalug bàkkaar yi maa ngi leen di wax dootuma naan ginnaaw si tey ndoxum reseñ mii ba kere may naan ak yéen ndoxum reseñ mu bees ci sama nguuru baay ginnaaw loolu ñuy woy yàlla ba noppi génn dem ca tundu olivier booba leen yéen ñépp dingeen ma dàggeeku ci guddi gi ndaxte bind nañu dinaa dóor sàmm bi xari jur gi tasaaroo waaye bu ma dekkee dinaa leen jiitu ji galile piyeer nag daldi jël kàddu gi naan bu la ñépp dàggeekoo man duma la dàggeeku mukk yéesu ne ko ci dëgg maa ngi la koy wax ci guddi gi balaa ginaara sab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 wu ñu ma war a jébbalee ci loxoy bàkkaarkat yi jege na jógleen nu dem xool leen ki may war a ngi nii di ñëw bi muy wax loolu nag yudaa mi bokkoon ca fukki taalibe ya ak ñaar te naroon koo wor agsi ànd ak mbooloo mu bari jóge ci saraxalekat yu mag ya ak ca njiiti xeet wa te gànnaayoo jaasi ak yet fekk yudaa moomu joxoon na leen tegtal ne leen ki may foon moom la jàppaleen ko mu daldi ñëw ci yéesu nag ne ko salaamaaleykum kilifa gi daldi ko fóon bu tàng yéesu tontu ko sama xarit xam naa lu tax nga ñëw noonu ñu daldi jege si song ko jàpp ko ca saasa kenn ci ñi ànd ak yeesu bocc jaaseem dóor surgaab saraxalekat bu mag ba nopp ba dagg waaye yéesu ne ko roofal sa jaasi ci mbaram ndaxte ku bocc jaasi jaasi moo lay rey xanaa xamuloo ni mën naa laaj sama baay te dina ma may ci taxawaay bi mbooloom malaaka mu xel dajul waaye su ma ko defoon nan la mbind mi mën a ame ndaxte mbind mi nee na nii la war a ame booba yéesu ne mbooloo mi jóg ngeen ngir jàpp ma gànnaayoo jaasi ak yet mel ni ñuy topp sàcc moona daanaa toog bés bu nekk ca kër yàlla ga di jàngale te jàppu leen ma waaye li lépp xew na ngir amal mbind yonent yi ci kaw loolu taalibe yépp dudd ko daw ña jàppoon yeesu yóbbu ko ca kër kayif saraxarekat bu mag ba fa xutbakat ya ak njiit ya daje piyeer topp ko fu sori ba ci ëttu saraxalekat bu mag ba mu dugg toog ak surga ya ngir seet nu mbir may mujje noonu saraxalekat yu mag ya ak kuréelu àttekat ya di seet naafeq bu mën a seede ci yéesu ba nu man koo rey waaye mënuñu koo am teewul ñu bari ñëwoon nañu di seede lu dul dëgg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 ña fa taxawoon ñëw ci piyeer ne ko ci lu wóor ne yow itam bokk nga ci ñoom ndaxte sa waxin feeñal na la bi mu ko déggee piyeer daldi giñ ak di waat ne xawma nit kooku te ci taxawaay ginaar daldi sab noonu piyeer fàttaliku la yéesu waxoon ne balaa ginaar a sab dinga ma weddi ñetti yoon mu daldi génn di jooy jooy yu metti